salaamaaleykum wa rahmatullah li mbokk jullit li maye la suma abonné laa ko may xool leen bu baax lii pataas la ak jinjeer ak bisaab bu weex bëpp feebar boo yore si kaw suuf si bi moo gën a gaaw yëpp li ma maye yëpp bi gën a gaaw essayé leen rek lii nag dama ko may suma abonné laa ko may de yoona nag boo ko foree mën nga ko def mais mais abonné laa ko may dangay partagé nga abonné def plus loolu mooy fay bi waaw même boo ma ñaanalu sax mais loolu mooy fay boo bësee plus rek jëlal nga utiliser essayé ko rek bépp feebar boo yore si sa yaram bi day ngay wér këng këng këng këng këng jox naa fi kànja bi jox fi limon bi jox fi leneen ak leneen bii moo gën a bii moo gën a baax danga koy def sa génn nga dëbb ko ba mu mokk ñett yi ah après nga weer ko boo ko weer après nga départ ko poudre bi def ko si ndox wala si meew nga di ko naan nga xool la ilaha illallah abonné leen gaaw ngeen partagé da ngay wër këng këng bépp feebar bu nekk sa biir yaram da koy wàccee benn tubaab nee na ma yow lu tax mënuloo créer société nga def def ko si ay carton paquet di ko jaay man maa ngi koy jaay kay mais bàyyi ma wan nit ñi ba pare rek nit ñi fu ne nii gëmuñu dara foog nga wan leen ay preuve lii jël leen nga ma may naa ko ah ah pataas la ak jinjeer ak bisaab bu weex hmm? xool leen bu baax de xool bu baax de moom la quoi hmm? lii pataas la léeg-léeg la. lee bisaab bu weex la ñett la da koy def si génn nga dëbb ko ba mu mokk nga weer ko bu woowee nga dëbbaat ko sunguf boobu def ko si meew nga di ko naan wala nga def ko si ndox rek di ko naan saay billaahi wallahi taala da ngay wér comme comme comme mbaam billaahi da ngay wér comme dërëm këng nga bépp feebar boo weere nag bépp feebar moom yeexal na wax bi mayee la sama abonné laa ko may yow boo ko boo ko foree nag boo ko foree mën nga ko waaye nag bu ma si waat di ma laaj bu ma kenn waat di ma laaj ni ñu koy defee wax naa ko moom mu leer li ma gën a bañ mooy nga dugal vidéo déglu ba pare naa lii waa lii moom li ñu koy defee dama bëgg nga jaaraat du ma si jaar du ma ci jaar dama lay coupé wala ma bloqué la sax voilà suma numéro bi 78 la 136 32 26 78 136 32 26 mooy numéro bi abonné leen ngeen partagé abonné bi mooy nga bës plus boo gisee sama vidéo da ngay gis lu xonq li si kaw plus bi boo bësee rek abonné nga vidéo bi ma dugal da ko gis vidéo yi passé da nga ko gis kon mu ngi noonu bépp feebar lay faj mayee la nag may naa ko sama abonné laa ko may parce que ñoom ñoo ñoo may partagé naa leen ko essayé leen ko da ngeen si am ndam bu rëy rëy rëy bii boo ku ko si am doo dem hôpital ku ko si def dootoo demate hôpital parce que balaa ngay dem hôpital la ah xaaral ma wut lii defar ko waay nga defaral sa bopp wér këŋ këŋ këŋ këŋ comme dërëm essayé leen rek bépp feebar boo am na tànk buy métti bopp bu métti biir métti cancer yëpp feebar yëpp am bàyyi dara tension yëpp lay wàcc diabète tout tout feebar yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp